organisation yi lëkkaloo société civile ñu si mel ni ONG yi liggéey bu am am solo la ñuy def si lu ñeel yokkute mu réew mi fu ne lañ leen di gis ñuy xettali doomu aadama yi ñuy gët si seen liggéey waaye jafe-jafe bi mooy kenn mënu ko xayma ndax amul booba léegi benn rapport buy fësal lu ni mel loolee waral OSC yi taxaw tembe fas yéene at mu jot léegi biral ab téere boo xam ne daañu si tënk seen liggéey. ONG yi li nga xam ne moom la ñuy toll na daanaka ci lu ëpp 700 milliards mu doon xaalis bu takkoo takku foo dem nag ci réew mi fekk leen fa. loolu lañ doon ñëw tey fésal ci rapport boo xamee ni li ñu bëgg mooy at mu jot ñu génne ko ndax daf ñoo war nag ñun nga xamee ni ñooy liggéey ci ONG yi ak ñun ñi nga xamee ni ñoo ciy gëstu euh, at mu jot ñu wax kat euh, ñi nga xamee ni ñoom la ñuy liggéeyal lii lañu fi def. rapport bi war a nekk foo xam ne daañ fa mën a taataane bépp xibaar bu ñeel yooyu la organisation bokk ci société civile ñu jagleel ko ñi jiite bailleur yeeg askan wi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo lu ni mel rapport bi ñu njëkk nag fësal wane na ni koppar gu bëri gi ñu jëfandikoo ngir seen financement wowul fii ci même réew. li fësal rek mooy vraiment bu ñu ñooñu téye woon seen loxo liggéey ONG dootul dox ci Sénégal ba tax na ñu ngi woo tamit nguur gi. moom it muy génn ci li nga xamee ni moom la sénégalais yi euh, fay ci lempo mu koy dimbalee ONG ngir ONG yi gën a mën a am taxawaay gën a mën a dimbale askan wi. bi la rapport ñëw bëgg leeral lépp si lu ñeel liggéeyu ONG yeeg yeneen xeetu kuréel yi nekk si biir société civile fi si réewu Sénégal te daana tax sax ñu gën a mën a dooleel seen liggéey matal li leen tax a jokk.